Bijou euh, léegi ñu tukki ak yow maire connaît tout euh, pour yi nga xam ne ni yenn saa yi mooy xew bitim réew ñun sax duñu koy yëg euh, waaye bu ñu la dégloo rek xam xam li xew ca ñooñu avant ñuy dem voyage Pape Cheikh dañuy yem fi Sénégal parce que dafa benn forum boo xam ne commencé na depuis le 8 mars ça s'appelle le Next Einstein Forum c'est-à-dire forum bi déterminer futur Einstein bi mais en Afrique li ñuy def mooy mettre en avant euh, recherche ak découverte scientifique yi nga xamante ne ay africain entre Égypte Sénégal Nigéria Afrique du Sud un peu partout en Afrique ñoom ñoo ko def ñëw wane ko pour ñu jox leen benn prix parce que euh, li ñu gis mooy jeune scientifique yi bëri na ci ñu am talent mm-hmm. mais duñu ko mettre en avant donc dañ doon dem gis ay chimiste ay mathématicien ay astrophysicien ku ci nekk indi li nga xamante ne moom nga inventé pour Afrique mun jëm kanam ci wàllu science waa rédaction demoon nañ fa def benn reportage ñu xool ko ñëwaat. Afrique di wéy di dépenser ay milliards ci dollars lépp ngir wuti ay ingénieurs ak ay techniciens lii nag doon koppar gu bëri gu muy ñàkk ki ko doon xamle sax di Thierry Zoumahun forum gu njëkk gi boole ay scientifique guléet muy am ci euh, continent bi doon lu ndaw yi nekk ci Afrique doon xaar ci wàllu science technologie ingénieur yi ak mathématique dina am nag ab plateforme panafricaine bu ñuy taxawal lépp ngir weccoo xalaat te liggéeyal askan yi. de partenariat pour le développement des compétences en sciences. ak partenariat bi ñu taxawal gën a dooleel ñi am xam-xam ci wàllu science appliquée dox suñu digganteeg Éthiopie ak Rwanda. bëgg nañ ci am lu toll euh, ci fukki junni ci ay docteur ndaje gu mag nga xam ni it dina jëm ci dundalaat science ak technologie ak it lii ci NEPAD doon na ay yoon yu ñu war a topp. sur la présidence ont montré la voie ndaje bi nag tax ñu gën a di weccoo seeni xalaat ngir Afrique lu jëm ci wàllu science ak technologie gën fii dox. réew Afrique am ay borom xam-xam yuy dem ci réew tugal yi di fay liggéeyi ak jigéen ñi nekk ci Afrique seen lim gu néew ci biir kuréel gi ëmb scientifique bi ci àdduna bi loolu lépp nag tax ba njiitu réew Rwanda ma nga xam ni mu ngi def liggéey gu am solo ci fànn bi di ñaawlu rek koppar ga néew gu ñu dugal ci wàllu science ak technique. lu ñuy dugal koppar gu takku ci lu jëm ci wàllu science ak euh, technologie loolee tax sax étudiante yu jigéen yi yëngu ci wàllu science néew lool ci université yi ba tey ci àdduna si ci wàllu science gis nañu takkuwuñu ñu nag li ñu am lu baax duñ ci jariñu lu bari. one third of fukk lauréat ak juróom ci jàppandalu bourse excellence bu neef. ñoom nag ñu sargal leen ci ndorteelu liggéey yi nag artistes yi way nañu ngir Afrique ñu booloo te ñu jëm ci kanam c'est vrai que euh, jot na tamit pour ñu gën a bàyyi xel ci xale xale xale xale xam-xam yi ah, xam nga ay xale xaalis la ñu xewal ak xale bës rek xale carte gab waaye <laughs> xale yi jara xale woo mooy xale xam-xam ak xale jàng école ak xale chimie xale physique xale science xale Einstein <laughs> ah, xale Einstein c'est vrai ah? xale yooyu xale jara pour seeni wayjur pour sargal Sénégal et là c'était une belle rencontre c'était une belle rencontre am na prix boo xamante ne dinañ ko joxe pour bi mm. parce que dañuy wax Afrique allez invention nit ki njëkk a juddoo Afrique la njëkk a juddoo mhm. moo nekkoon tamit berceau de la science parce que science yi ñuy utiliser ci àdduna bi yëpp boo dee xool euh, selon recherche Cheikh Anta Diop yi Égypte la jóge mhm. après nit ñi dañ ko usurper rek bind ko ne ñoom ñoo ko moom mais yëpp Égypte la jóge Afrique la jóge mhm. donc il n'est pas question que actuellement Afrique di des ginnaaw ci wàllu science et suñu développement passera forcément par le développement de la science lu ñuy ñaan rek surtout Sénégal mooy ñu gën leen subventionner dem seeti scientifique yi mm-hmm. le problème qu'ils ont c'est le problème de moyens mm-hmm. parce que le talent est là la connaissance est là dañuy def ay recherche dañuy am ay résultats mais mise en œuvre bi pour que société bi mën ko utiliser mooy des te loolu mm-hmm. xaalis moo koy def. voilà donc xale xam-xam yooyu na leen mag ñi jàppale. comme ça xale Einstein c'est ça jàng leen doon ay scientifique di créer ay affaire pour seen dëkk. bañ a ni petit euh, xale xale <laughs> <laughs> <laughs> alors euh, on, on va aller aux États-Unis ñu dem ñu dem Amérique il paraît que dafa am ku ñu doon jiiñ ni moom moo indi dugal sida bi au début des années. Euh, 70 70 quelque mm. chose comme ça waaw. alors Pape Samba am nañu photo bi nit kooku mu ngi tudd euh, Gaëtan Duga la tudd moo ah, nekk nii moom la ñu waxoon moom moo nekk patient zéro bi nga xamante ne moom moo dugal sida biir États-Unis dans les années 70 années 80 mm. yi moom il est décédé en 87 du sida benn pilote bi et tout le temps daf doon ànd ak ay xale yu jigéen yu bëri. Euh, donc du coup te en temps yooyu protection moom kenn xalaatu ko woon parce que sida bëreegul woon. Mm. donc wàll na nit yu bëri. 87 euh, mu décédé ñëpp nag ne moom mooy patient zéro moom moo dugal sida biir États-Unis actuellement dafa amoon euh, benn conférence bu amoon au niveau des États-Unis conférence on retrovirus and opportunistic infection je crois que c'est comme ça Boston la woon aux États-Unis dafa am benn scientifique boo xamante ni biologiste <laughs> moléculaire mi ngi tudd Michael Vorobey moom nag dafa def ay recherche mm-hmm. ci cellules souches yi joxe sida parce que sida boo dee xol virus bi à chaque fois bu wàllee kenn day évoluer day changé. Mhm. donc moom recherche yi mu def entre virus yu nekk 77 78 79. la xool bi mu ko xoolee nag dafa gis ne bosu ki ñu ne mooy patient zéro bi euh, virus yu 77 la tollool. Mm. te 77 waa ji demoon na Haïti boobu Sida amoon na fa donc foofu la ko jëlee alors que au niveau des États-Unis Sida bi dugg na fa en 1970 donc ñu prouvé que ki ñu jëloon benn canadien ne mooy patient zéro. c'est pas lui donc finalement dañuy waraat patient zéro pour te dire que science. intérêt loolu la parfois di nga mhm. gis ku nit ñu ne yow la finalement dinañ fexe ba def test d'ADN ba génnee la prison ne nekkul yow am na ñoo xam ne def nañ cinquante ans prison c'est la science qui leur permis de sortir donc moom loolu moo ko setal actuellement mais merci même si naax saay na voilà yàlla ñu yàlla may wér dégg naa yaay yaay yaaye da koy faj euh, on passe à <laughs> autre chose nañ fa dem faju ji bokk ko am. Euh, benn invention boo xam ne jabelup la tudd benn euh, dispositif électronique la boo xam ne dañ koy tuddee pancréas artificiel pour ñi nga xam ne diabète de type 1 lañu am mooy diabète bi nekk insulino yow justement baal ma kaay justement yow on part du loup viens kaay yow justement kaay toog nii tuuti rek am lu bijou àggali ma am ay questions yu ma la posé justement jëkkëru Marie kaay toogal yow justement baan baan baan sa kanam gii la Sénégal namm toogat nii rek yow. baan baan toogat nii justement bi su paree li muy expliqué am ñu am lu ñu la laaj tuuti ci ay questions. donc dañ ko tuddee pancréas artificiel pour ñu am diabète de type 1 diabète de type 1 mooy insuline dépendant. parce que jabet ñi ko am euh, seen taux de sucre dafa ëpp ci biir euh, deret bi. Mhm. ñi am insuline dépendant nag insuline bi réguler taux jabet bi la ñu amul. donc pancréas bi dañ leen koy installer benn patch la boo xam ne dañ koy coller seen yaram. am euh, benn genre téléphone bu ñuy dugal seen poche ak euh, benn pompe léegi bu fekkente ne sucre bi nekk seen biir yaram dafa ëpp message lay nekk ñëw ci téléphone bi donc euh, euh, pompe bi dugal directement insuline bi ñu soxla seen biir yaram pour wàccee ko parce que d'habitude ñi am insuline dépendant il faut ñu def entre 4 à 6 piqûres par jour actuellement phase test la ñu ne. piqûre bi ah. mooy piqûre bi. ñi am insuline dépendant xam dañuy piqûre. dañuy activité physique am benn patch mooy appareil bii nii. waaw lii da nga koy dugal sa poche. Mhm. leneen li nga kole ko sa yaram. Mhm. léegi voilà. boo soxlaa rek mu dugal. léegi capteur bi ci abdomen bi nga koy def. léegi mhm. bu fekkente ne capteur bi dafa capté ni jabe euh, sucre bi nekk sa yaram. dugg ko ci biir non non dañ ko teg ci ah, ko teg sa biir lenn li sa loxo nga koy def patch bi capteur bi sa abdomen capteur bi mooy natt sucre bi nekk sa biir yaram. bu fekkee dafa ëpp 1 gramme par litre. mu envoyé message appareil bii nii ngay gis sa poche nga koy def comme ça appareil bi envoyé message euh, patch bi patch bi dugal non euh, taux de d'insuline bi nga xam ne moom nga soxla pour réguler. j'ai vu un truc de ce genre après man xaw ma xam nga man samay xool damay mel ni dof euh, bu am France ñu ngi koy publicité dangay ngay da ngay kii benn appareil booy xam ne dangay ngay. non loolu pour natt. Ah, pour natt suukar bi diabète bi ok taux sucre bi nekk sa yaram. Ah. te ñaari type de diabète yëpp mën nañ ko utiliser insuline indépendant wala beneen bi. Ah. di wax boo diabétee ba pare. boo diabétee ba pare la voilà. Ah, d'accord yow sa monsieur bi sax dafa mel ni lu diabétique. déedéet bii moom diabète bàyyi ko petit Sofia bi nga ko kii rek. bu ko yóbbu diabète. c'est une bonne nouvelle pour les diabétiques actuellement c'est en phase test am na 40 personnes yu ñu war a jël pour tester ko ci ñoom. d'accord dès que ça marche dañ koy mettre sur le marché mu éviter 1000 cas de décès yi ñuy am de diabète par an. ak hospitalisation yi nga xam ne ñi am insuline dépendant ñu koy am. voilà képp ku feebar ñu ngi lay ñaanal wér. Euh, am na fii am na fii Sénégal. Euh, voilà yàlla na. walaay walaay walaay walaay yàlla na yàlla na. voilà et on finit avec quoi. Bah, euh, je voulais finir avec la vidéo de la dernière fois mais. non Samba daf maa bañ. Euh. voilà moo moo moo yey bañ sax. moo yey bañ sax jërëjëf Bijou je rappelle que loolu. mën ngeen ko amaat euh, ci YouTube bi slash TFM ñi waxtaan.